yow boobu di ko gunge ak ndokkeel ak ziyaara di ko jëmee ci kenn ku ci yéen ca la muy yëngu ak ca fa muy yëngu yal na ko ci suñ nuyoo bi fekk jàmm ja matale leen yërmande ja ak barke ba daj leen ba kenn ku ci nekk yëg ko ci palaasam yëg ko ci jëmmam ñi mu fekkoon ñi seen yaram yi sutante yàlla na ko yàlla saafara bismihi shaafi ñi mu fekk ci xat-xat yàlla na yàlla wuññi njàqare gañ nekk ak seen xat-xat ba yàlla yàkkali ko moo xam xat-xatu néegu sëy la moo xam xat-xatu njaboot la moo xam xat-xatu liggéey la moo xam xat-xatu jafe-jafe la amul kenn ku ko mën a wuññi ku dul yàlla yal na yàlla wuññil leen ko te wuññul ñi ko ci barkeeb sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma fas yéene ànd ak yéen ñi bokk bànneexal ci suñu xol yi ah, di jëmm ju tedd ju sell joo xam ne képp ku ko sopp mu dëggu ci sa xol cofeel googa dana la soppi jëlee la ci xat-xat yóbbu la ci yaatu-yaatu jëlee la ci texe xat yóbbu la ci texe jëlee la ci ak wéré di yóbbu la ci wér jëlee la ci wërsëg wu xat yóbbu la ci naataangeeg koom-koom ba tax na daal ku ko sopp rek cofeel ga soppi la muy jëmm ju tedd joo xam ne moo mag ku dul yàlla ku dul yàlla rek sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama moo moo mag mbooleem malaaka yi moom mag mbooleem doomu aadama yi moom mag mbooleem jinne yi moom mag mbooleem ruuxaani yiine yi moom mag mbooleem lu dëkkee malawul axla waaye tamit moom mag mbooleem lu dëkkee ci mbooleem awalim yi yàlla xam mu bari lool ba mu ba mu koy tudd sax ci fatiha da nga dégg mu ne rabbil alamina yéegal ko ci jamoo muzakkar salim ni rafaaye waaw lu muy defati rek yaa magag yonantu bi li ñu koy firndeel benn bis jibril dafa mës a ñëw ci yonantu bi sallallahu alayhi wa ñoom ñaar ñi wéet di werante ak mageel jibril laaj yonantu bi mu ne ko mag laa de yonantu bi tamit laaj jibril mu ne ko mag laa de jibril jàppoon moo mag yonantu bi ndax mbooleem yonantu yàlla mos yoon nii ci yonantu yàlla noox ba ci sayduna isa moo daan jëlee message ba ci yàlla di leen ko indil yàgg ak loola tamit tax mu foo moo mag ñu bëree bëri ba mu waxee ak mageelam yonentu bi ne ko loo fàttaliku gis a mageel mu ne ko benn biddiw daal buy féq ci ron aras bu féqee balaa féqati dana mat téeméeri junne at te man mi fekkee naa ko juróom ñaar fukki junne yoon yonentu bi ne ko ana zaaka najmi yow Jibril maa lay xamal man Seyduna Muhammad ne man mi maa doon euh, biddiw booba foofa rekk nag la Jibril wedemee xamatul lum cay tegati ndax yëg na ne yonantu bi sallallahu alayhi moo mag kudul yàlla moom mag ku yàlla loola tamit moom waxal na ko boppam ci ay ahadis yu bëree bare bëree bëri ulama wa hadis yi solo ko mu nekk hadis yu wér te moom nag mi ko wax danga war a yëg ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa du tudd dara ci bànneexu ba kanam waaye lépp lu wax rekk yàlla ko ko waxloo tam mi ngi ko waxee tamit ci ndigalal yàlla ah, moo tax moom yonent bi ak mageelam nettali na ko ci ay ahadis yu bëri bokk na ci hadisu jaabir bu siiw boobu muy jaabir ibnu abdallahi al ansaari moom moo ñëwoon ci yonantu bi ne ko yow yonantu bi man njotee naa la sama baay njotee naa la sama yaay dama bëggoon daal nga soloma li yàlla njëkk bind njëkk muy bind dara jaabir yonantu bi ne ko daal li yàlla njëkk bind njëkk muy bind dara mooy leer ak sa yonantu bii di sayyiduna muhammad moom la yàlla njëkk a bind jëlee ko ca leeram googu di allahu nuuru samawati wal ardi masalu nuurihi ka mishkatin fiya misbaaxunil misbaaxu fi zujajatini zujaja fi zujajatini zujaja kaanaha kawkabun duriyun ñenn ñi jàng diriyun ñenn ñi jàng dëriyun lu ci mun di am min shajaratin mubarakatin zaytunati su ko defee kon yonentu bi ne ko li yàlla njëkk a bind yow jaabir daal gannaaw bi jaabir ñëwee ne ko qultu ya rasulallahi bi abi anta wa ummi axbirni an awali cheyin xalaqahu llah qabla al qaala yaa jaabiru inna allaha taala xalaka qabla al asyaai nuura nabiyika min nuurihi fa jaala daaka nuur yaduuru bil qudrati xaytu saa xaytu saa allahu taala walam yakun fi daaka al waqt lawhun wala qalamun wala jannatun wala naarun wala malakun wala samaun wala ardun wala shamsun wala qamarun wala jinnun wala insun xadis bu gudd la mu ne ko bi yàlla di bind leer googa bindee ko ca leeram nga ci kartanam booba daal jaabir maa lay yëgal ne lawhul mahfuus bi ñuy bind dogal yi amut xalima nga koy bind amut aljana ak safara amuñu malaaka ak asamaan ak suuf ak jant ak weer ak jinne ak nit dara amu ci yàlla nag jël leer googa xaaj ko ñeenti xaaj kaaj bu njëkk ba ci la bind alxalamu gi muy gëñ ne nuun wal ñaareel ba ci la bind lawxul maxfuuf ji muy wax ne umul kitaab bu ko defee tamit ñetteel ba ci la bind moom yàlla euh, dégg nga dee mu bind ca lawxul maxfuus googa noona gannaaw xalimba ga euh, continué leer ga tamit mu jël beneen kaaj ba xaajaat ko ñeenti xaaj kaaj bu jëkk ba ci lay bind ñey xenu arash te mooy malaaka yooyu xenu arash waaye ñaareel ba mu bind ca kursi yu ñetteel mu bind ca des ci malaaka yi beneen kaaj ba mu kaajaat ko ñeenti kaaj xaaj bu njëkk mu bind ca e, juróom-ñaari asamaan yi ñaareel mu bind ca juróom-ñaari suuf yi ñetteel mu bind ca aljana ak safara benn kaaj ba ca des mu defaat ko ñeenti kaaj kaaj bu njëkk ba nag ca la bind leeri jullit ñi ñaareel ba mu bind ca leeri seen xol ya ñetteel ba mu bind ca leer gi leen i wéttali te mooy tawxiid muy laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullahi xadis boobu abdurazaq moo ko solo doontele ñu bëri ci ulamaawu xadis yi dañ koy jéem a jàmm waaye xadis boobu li muy tekki rek mooy njëlbeen gi yonantu bi njëlbeenu ak njëkk gi fi yonantu bi njëkk kudul yàlla ak mag gi yonantu bi mag kudul yàlla waaye boo jamee hadis boobu tamit am na yeneen yeneeni ahadis yuy tekki loola di wane loola te loola bokk na ci hadis bi Abdullah ibnu Omar jëlee ko ci sayduna Muhammad sallallahu alayhi mu ne yàlla dogali mbindeef yi la njëkk bind njëkk muy bind asamaan ak suuf lu tolloog juróom fukki junnee xat arasam nga nekk ci kaw ndox su ko defee nag ak la nga xam ne ni bind na ko ca ca kitaab mu bind njëkk loola lépp mu bind muhammadu rasulullahi leeram ga kooku ba xawi solo na hadis bi te boobu xadis amul benn ulamaawu ci ulamaawu xadis yi ku ko jam ba muy jeex ak sax mu ne inni abdullahi maktubun xaatimu nabiyina wa inna adama la munjadilun fi tiinatihi mu ne moom yàlla kataba maqadiral xalqi qabla an yaxluqa samawati wal ard bi xamsina alfa sanatin wa kaana arshu ala almaai wa min jumlati ma kataba fi zikri wa huwa ummul kitaab anna muhammadan xaatimu nabiyina boobu hadis muslim moo ko solo boo demee tamit Baghawi solo na ko ca sarxu sunnati jëlee ca irbaat moo mi nga xam ne doomu saariyatu la mu jëlee ko moom saariyatu ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom nag ci riwaaya muslim ba hadis baa ngi xam rek anna muhammadan xaatimu nabiyina waaye la ca togg nag baxawi solo ko yokk na ca ne inni abdullahi maktubun xaatimu nabiyina wa inna adama la munjadilun fi tiinatihi boobu hadis dafay tegtale mag gi yonumtu bi mag ku yàlla ñetteelu hadis bi omar ibnu xataab moo ko solo bi ma la waxoon sànq doomi omar a ko solo di abdullahi ibnu omar bii nag Omar ibnu Xataab ko solal boppam mu ne lamaktarafa aadamul xatiata qaala yaa rabbi asaluka bi xaqi muhammadin lama gafarta lii fa qaala allahu yaa aadamu wa kayfa arafta muhammadan wa lam axluqhu qaala li annaka yaa rabbi lama xalaqtanii bi yadika wa nafaxta fiya min ruuxika rafaxtu rasi fa raaytu ala qawaimi l arshi maktuban la ilaha illa allahu muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabal xalqi ilayka fa qaala allahu taala sadaqta ya aadamu innahu la ahabul xalqi ilayya wa ida saaltani bi xaqihi qad gafartu laka walawlaa muhammadun maa xalaqtuka rawaahul bayhaqiyu mu andi ko ci fii dalaa'il ak xaakim andi na ko wéral ko Omar ibnul Xattaab mu ne maa dégg ci yonantu bi mu ne suñu maam Adama ba mu faggoo ak mooy ci zahir te mu nekk topp yàlla ci baatin ci wa asaa aadamu rabbahu fa gawa wa asaa aadamu rabbahu fa gawa aadama ci boppam nag ne yow yàlla maa ngi lay ñaan ci darajaay yonantu bi hadis bi day saxal na sax tawasul dagan na ñu koy dàq hadis bi moo leen di delloo jottaliku ci ku la gën a jege ci yàlla dara nekkut ca tekki hulul jottaliku ci yàlla rek moo tax tawasul aadama ko njëkk a def ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama mu ne ko maa ngi def tawasul ci xaqi muhammad nga jéggal ma yàlla ne ko yow aadama noo def ba xam muhammad sallallahu alayhi wa sallam te bindaguma ko ci zahir mu feeñ mu ne ko ba nga ma bindee rek yow yàlla wal sa ruuxu gi nga hebal ci man ci laay yëkkati sama bopp bi rek ma gis ci kenoy arash yi ñu bind ci laa ilaha illa muhammadu rasulullahi ci laa xam ne yow yàlla ni nga fiireeg ni nga màggee ni nga bañee lu la jege ak ku la jege tur woo jël jegel ko sa tur wi taf ko ca kooka mooy ki nga gën a bëgg ci sa mbindeef yi yàlla ne ko wax nga dëgg kooku laa gën a bëgg ci sama mbindeef yi muy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama boo ma ñaanee ci xàqam man yàlla ma jéggal la te bu toxutoo nag yonentu yàlla muhammad moomu sax duma la bind kon hadis bi ñëw na ngir saxal ñaar yoo xam ne léeg-léeg nit dàq ko te du am wéeruwaay ñëw na ngir saxal ne mbindeef yëpp yonantu bee tax yàlla bind leen bu taxutoo nag yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla doo amal dara loolu moom la mag ñi gëm roy ca ahmadul busayri yu bokk ci wëliyu yàlla yi gën a xam cër xadis boobu la tegtaloo def liqtibaas ci wayam wi ne fa inna min juudika dunya wa darataha wa min ulumika ilma allawxi wal qalami mu ne ko ci sa tabe gi ci la àdduna beeg wu jëm waxamee di àllaaxira ci sa xam-xam yu bari yi ci la lawxul mahfuus ak xalim ba bind ci la tëbbee kon lii dafay tekki ne li tax yàlla xamal mbindeef yi daal mooy yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama yàlla wax na ko aadama ñaareel bi tamit mi ngi tekki ne mboolem lu yàlla xamal yonentoo ci mag ba ca xam ak yonentu ba ca la leneen lépp lu mën a xam xamee kon ku la waxati ne yonentu moo xamal min ci sababam yàllaa ngi xamalee mbindeef ci yonentu bi nit bëgg koo dàq rek indil ko hadis bi nga xam ne imaamu bayhaqi yu moo ko solo xaakim tamit wéral na boobu Omar ibnul moo ko génnee jëlee ko ca sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa euh, ñetteel bi abi hurayrata bokkoon ki ñi gën a jege yonantu bi moo wax ne yonantoo wax ne bu'istu min xayri qurunin bu'istu min xayri quruni bani adama qarnan fa qarnan hatta kuntu min al qarni alladi kuntu fihi kooku rawaahul buxaari yu wa muslim tamit solo nañ xadis boobu muslim jëlee ko ca wasilatu ibnul asqa radiallahu anhum su ko defee kon nag abi hurayra mu ne yonentu maa ko dégg mu ne yónni nañ ma ci gën ci seekal yi doomu aadama yi seekal ba ca gën ci lañ ma yónni su ko defee ba ma nekk ci bi gën ci seekal ba moo tax mu daan wax ne xayrul quruni qarni suma lazina yellunahum door a ñëw suma lazina yellunahum door a ñëw noonu tamit ngay jële ci waasilatu bnu askar mu ne man ci sama bopp maa dégg yonantu bi ne inna allaha astafa kinaanata min waladi ismail wastafa qurayshan min kinaanata wastafa min qurayshin bani hashimin wastafaani min bani hashim loolu moom ibnu asqa moo ko dégg yonentu ne yàlla tànn na kinaanata ci biir doomi yonentu yàlla ismaila yi tànn quraysh ci barki ci biir kinaanata bani hashim ci biir quraysh yi tànn ma nag man mii ci biir bani hashim su ko defee kon nag man mii ñi tànn ma ma bàyyi ko ci ñoom mooy dëggal way wi suñu maam yi leer ja waxoon Seydil Hadji Malick def ko liqtibaas mu dugal ko ci xilaas ne fal urbu xayru unaasin summa xayruhum quraysuhum wa huwa fihim xayru xayrihimi kooku nag mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama ku bañ yonantu bi gën la bul juddu ku bañ baña a ne ci yonantu bi nga soqeekoo ci kartanal yàlla bul xam ku bañ yonantu bi jiitu la tamit bul xam waaye daal yonantu ba fi jiitu ku dul yàlla yonantu bee gën ku dul yàlla gënantiwut ak moom sax yonent bi tamit moo tax yàlla amal lu dul moom euh, demeet boo demee ca abu naim yi ak tabaraani yu jëlee nañ ci sayyidatuna Aïcha mi nday jullit ñi <coughs> wax na jëlee na ci yonentu yonentu jëlee ci jibril mu wax ne maanaam wëlbatinaa penkook sow bi gisuma góor gu gën sayyiduna muhammad gisuma tamit maanaam yonantu bi yàlla bu gën yonantu bi yàlla tànnee ci bani hashim kooku xaafis ibnu xajiri wax na ko ci téere bu ñuy tuddee lawaixu sixa moo tax moo tax mu ne wax na ne jële nañ ci aïcha mu jëlee ci yonantu mu jëlee ci jibril mu jëlee ci yàlla mu ne xallabtu mashariqa ardi wa magharibiha falam ajid rajulan afdala min muhammadin walam ara bani abbin afdala min bani hashim kon loolu lépp mi ngi tegtale gëneel gi yonent bi gën kudul moom ak tegtale gi muy tegtale yonent bi jiitu gum jiitu kudul moom jëlee nañ ca salmaanul farisi mu wax ne moom habata jibrilu ala nabii fa qaala inna rabbaka yaquul kuntu ittaxastu ibrahima qalilan faqad ittaxastuka habiban wa ma xalaqtu xalqan akrama alaya minka wa laqad xalaqtuka dunya wa laqad xalaqtu dunya wa ahlaha li uarrifahum karamataka wa manzilataka indi walaw laaka maa xalaqtu dunia rawaahu ibnu salmaanul farisiyu nee na jibril wàcc na ci yonantu bi ne ko sa borom nee na jàpp na sayduna ibrahima muy xaritam mu jël na sax nga koy tekkee min afaali tasir waaye yow mii nag jàpp na la mu jël na la ngay soppeem yàlla bindut kenn ku la gën a tedd waaye bindut àddunaak li nekk ci biiram lu dul mu xamal leen sa tedd ga rek a tax yàlla bind àddunaak li ci biiram pour ñu xam sa tedd nga ak sa daraja ju màgg ji ci man bu taxutoo nag yow mii man yàlla du ma bind dara moo tax kon suñu maami leer ya boo déggee maam xalifa naan lawlaahu lam yakun kullu kaw anta wala ma zaala an dawihi shaqaa'u bu ko weddi boo déggee mu ne tamit euh, fa huwa almuqaddamu xaqan fi lxalqi duna jidaali wa in taaxara baasan fafham li jamci alxilaali ataa bihi llahu lama tamat buxuru dalaali wa dajjati al ardu minhu wa zulzilat li zawaali fannaara subu hudaahu walaaha badrul walaaha badrul kamaali fa waxada laa xaqan man kaana fi sharki fi shirki xaali fa asbaha alxaqu yaalu wa shirku taxta niaali bu ko weddi mag ñi ku leen sut tànk ñi sut la aliwa man ngaa dem fu ñu demut waaye boo ñëwee ñu wax la fa loo xamut te duñ wax mukk lu ñuy làmbatu te mbooleem suñu maami leer yi mandi ci xaqiqa mandi ci sharia d'accord nañ ñoom ñépp ne yonantu bi tax yàlla amal mbindeef yi yonantu bi moo jiitu ci ku yàlla njëkk bind ci mbindeefi yàlla yi moom mag ku yàlla sayidi ahmad tijaani sharif loolu gëm sayidi abdul qadir jaylaani loolu gëm imaamu asuyutiyu loolu la gëm abi jamratazil fadaili loolu la gëm imaamul maghrib yeeg chazali yeeg loolu la ñu gëm euh, xaadimu si ahmad bamba loolu la gëm sayidil haji malik loolu la gëm mawlaaya xaaja abdalaayi ñaas loolu la gëm mbooleem góor yàlla yi ma tudda ña soqeekoo ca ñoom loolu lañ gëm te loolu lañ bind fesal ko su boobaa nag kon boo bu fi nekkati di bokk ci ña koy weddi mag ñi kenn gënu leen a xam sharia kenn gënu leen a xam yonentu yàlla xam muhammad ndax seen cër heggoon na ci di gis yonentu bi yàq satan laa mën a man moo tax kon loolu jërta wéet yi dinaa la wax gis yonantu beeg maqaama ya koy maye wax la tamit diggante fa ngay gisee yonantu beeg hijaab ya fa dox yépp boo jëlee abi saïd al xudri yi moo wax ne yonantoo wax ne jibril ñëwal na ma ne ma sama borom ak sa borom te muy benn borom mu ngi wax ne yëkkati naa sama tuur lëkkale koog sa tuur ba fu ñu ma tuddee tudd la kooku alquran wax na ko war a fax naa zikraka moo tax amul kenn koy tuub dugg ci diine ji lu dul boo ne ashhadu an laa ilaha illa allahu rek wa anna muhammadan rasulullah nga cay teg lu ko may sa tuub ga wérut naka noonu kuy kuy taaya soo tuddee yàlla tudd yonantu kuy liqaam boo ne ashhadu an laa ilaha illa allahu wa anna muhammadan rasulullah nga cay teg li ko mooy sa liqaam nga wérut li ko mooy tamit sa noddu ga wérut li ko moy timi sa tuub ga wérut kon kooku moom kenn kott moo ko jagoo moom sayyidul awwalina wal axirin mi nga xam ne xam le na ne ku ko sopp li safara yi lakke lakke dootul la mën a lakkati ndax sa leer ak cofeel ga mooy mujjil fay safara id kullu qalbin ahaba almustafa xarumat naarul jahimi alayhi wa huwa fi xurumi kon kooku mooy sayduna muhammad mi nga xam ne euh, boo demee ci abdurahman ma ngay wax ne moom yonentu nee na ana nabiyul ummiyu saadiqu zakiyu alwaylu kullal kullul wayli liman kazabani wa tawalla anni wa qaatalani wal xayru liman aawani wa amana biya wa saddaqa qawli wa jahada ma'i kooku rawaw ibnu saadin mu ne Abdurahman moo wax ne yonentu bi sallallahu alayhi wax ne man maay nabiyu bi nga xam ne ummi yu laa munu bind de waaye maa dàq jàng kuy bind ku bind jox ma duma mën a liir de waaye kuy liir maa la dàq jàng maay ku dëgg ku sel kii toskare gépp ak toskare ñaal na wala waral na ku ma weddi dëdduma ak di jéem a xeex ak man waaye xiw ñaal na ki ma tàpp gëm dëggal ma dëggal tamit samay wax jihaad ànd ak man kon kooku mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama mi nga xam ne ku ko sopp ba julli ci moom benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon nga sopp ko julli ci moom fukki yoon yàlla julli ci yow téeméeri yoon nga sopp ko julli ci moom téeméeri yoon yàlla julli ci yow junnee yoon nga sopp ko julli ci moom junnee yoon mbaggam ak mbaggam mbaggam ak sa mbagg buux buuxloo ca buntu aljana nee na xamut yaa koy njëkk a dugg wala moo lay njëkk dugg ma ak ah kay nañ dugg rek moom nañu njëkk a dugg te moo ñu njëkk dugg sax ndax mooy kii dala waxal jana kuy duggati door di duggati ca gannaawam nga kon sayduna muhammad ak koog sallallahu alayhi wa nga xam ne kenn ki ñun mënta gëm-gëm yàlla gu mat gu wér lu dul ba dafa laa gënal sa bopp gënal la sa ndey gënal la sa baay gënal la mboole mbindeef yi ana sa génnee xadis bi buxaari yoog muslim solo ko yonentu bi ne laa yuminu ahadukum xatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wannaasi ajmain rawaahul buxaari yu wa muslim kon xadisu naa alayhi la moo tax daana wax ne yàlla jox na ma juróom yum joxut kenn yàlla jox na ma ngelaw lu may dimbale doxam weer képp ko fi sama noon yàlla jox na ma ngelaw loo xam ne bu huppee yaa ngay parpari lox donte mosoo maa gis yàlla defal na ma suuf lépp muy jàkka maag sama xeet wi fu ñu ci neex jullee fa xeet yi jiitu woon nag seen jàkka ya rek lañ mën a jullee buñ jullee ci bureau du doy buñ jullee ci tool du doy buñ jullee ci yoon du doy fu ñu mën a jullee fu dul foofa rek ci seen jàkka ya du mën a wér mu ne tamit yàlla def na ma sama xeet wi fu leen julli fekk rek mën nañ ko faa def mu wér na laab rek waaye yàlla defal na ma tamit màng mi ñuy jëlee ci xéeféer di xeex ak ñoom gañe leen dagan na ma dagan na sama xeet wi tey dañu jiitu woon nag lekk màng daganu toon soo gañee sab noon ci xare jël xalalam da nga koy teg ci bayal bu ko safara lakkee wala ngelaw yëkkati ko ci niir rek nga xam ne yàlla nangu na ko beneen bi yàlla jox na ma ak ràmm maay ki nga xam ne man la yàlla jagal shafaatul kubra bu ñëpp jàqee daw ci yonantu bu ne yonentu ba ne tiit ba ne nafsi man kenn kott maa jug ne ana laa commencé kabar sujjóot jibril fekk ko ne ko irfa saka sal tuxta tasfa tusfa kon kooku mooy ki nga xam ne mooy ki ñuy rammaloo mu jiitu ci kuy ramm loolu man kenn maa ko xam yonentu yëpp dañ leen a yónni woon ke seen xeet ya wala qad arsalna nuuhan ila qawmihi wa ilaa aadin axaahum hudan wa ilaa madyana axaahum shuayban demeet wa luutan id qaala waaye man nag wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin waaye ñee ñëpp nag ci seen xeet wa rek man nag maa yonantoob ñëpp maa yonantoob fépp maa yonantoob lépp ba yonantu ya woon sax man mii maay seen ab yonantu kooku hadis la yonantu bee ko wax jaabir génnee hadis bi su ko defee mu ne utitu xamsan lam yutihunna ahadun qabli nusirtu bi ru'bi min masirati shahrin wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli wa uhillat lil maghanimu walam taxul li ahadin qabli wa utitu shafaata wa kaana nabiyu buasu ila qawmihi xaasatan wa buistu ila nnaasi amatan rawahul buxaari wa muslim kon loola mooy dayoob tedd nga gu yàlla jagleel sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tëj làmb ji tamit moo hubbi làmb ji moo ko tëj moom la yàlla njëkk a amal waaye moom la yàlla yoon mujjee yónni gannaawam ba waaye àdduna tukki benn yoon dootul xamati moo tax sax mu bokk ci turam yaa aqibu aqib mooy tekki aji mujji moom waxal na ko boppam ne ana muhammadun nabiyul ummiyu laa nabiya baadi utiitu jawaami al kalimi wa xawaatimahu rawaahu imaamu ahmad bi sanadin xasanin kon yonentoo ngoog tabaarakallaahu Euh, mi jëmm ju tedd ju sell joo xam ne fas nañu éene ànd ak yéen ci waxtaan yi ñi bokk ci bànneexal ci suñu xol ndax suñu xol yi gën a dund ci cofeel ci leer gu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama te moom bépp xol bu dund ci cofeel ak leer ci moom rekk xol booba bu jëmm ja feebaree tamit euh, jëmm ja xol ba wér na waaye bépp jëmm joo xam ne dundut ci leeru yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama bu jëmm ja wéree tamit xol ba feebar na te feebar yëpp bi ci gën a bon mooy feebaru xol feebar yëpp bi ci gën a bon mooy feebar jàngoro joo xam ne dafa nekk ci sa xol bi te loola bu ca nekkee tamit moom la yàlla jagleel sallallahu alayhi wa sallama boo xettalikoo ci dara jaam ju yaatu jooja yàlla mën naa saafara sa jàngoroy xol ba dootoo ko yëgati ndax moom kaasif la waaye tamit muris la ku xettaliku ci moom yàlla xettali la kuy def tawassul jaaree ko ca dara jaam ju yaatu ji nga xam ne ñëpp xaj nañ ci lépp xaj ci tamoom moom ci kenn waaye ñëpp xaj ci moom su boobaa tamit yàlla xettali la ci dara jaam ju yaatu jooja sallallahu alayhi wa sallama xam naa boo ma toppee suba ci waxtu wii ma sof ak yow loolu ma sosoon ak yow ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa mi nga xam ne moom mag ku dul yàlla waaye lu yàlla xamalati rek mi ngi ko xamalee ca xam ak sayiduna muhammad ga sallallahu alayhi wa sallam bu taxutoon ak moom yàlla du xamal dara du xamal lenn du xamal ñenn du xamal fenn loolo moom wax na ko moom ci boppam suñ mag ñu tedd ñi timit saxal nañ loola ci seen téere yi mag moo ca def boo ko liiralee danga fekk moom d'accord na ca loola ba saxal ko amul kenn ki ñoom ku dëppoowut ca loola boo ma toppee suba nag ma sof ak yow sallallahu alayhi wa sallama ca leeram gu màgg googa nga xam ne moo mag lu dul moom fu leer ga jaar ca kiiraay ya fu leer ga jaar tabaarakallaahu ca xijaab ya bañ mujj jël leer googa dénku ko suñ maam Adama mu dénk ko Seydina Chiisa mu jàll jaar ci Axnuux di Idrissa dema dem ba ca borom leer googa nag ab lexoon ko feeñaat ak leeram ga ak takkaay ga kooku suba ci waxtu wi lay doon insha allahu wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu